مرابعي يلمع فابن امرأ إذ يلمع البرق يدمع les idées de Cheikh Mohamedou Mahi Cheikh Ibrahim Niass, Khalif général de la Faydatul Tijaniya, Imam Cheikh Ahmed Tijan, Seydi al Cissé, imam de la grande mosquée de Medina Baye, sous l'autorisation de Cheikh Mohamedou Amin Cheikh Ibrahim Niass, représentant du Khalif à Dakar, Wadair Anwarul Faydati Tijani bu Sénélec, ñoo leen di grande conférence religieuse bu amal le samedi 30 décembre 2023 fii ci kër Baye jëppal à partir de 16h mbokki conférence bu mag bii ki Bourom nar a waxtaanee moo xam-xam bu ñepp xam ko ci conférence yu am solo yi amal di cheikh mohammed boukar omar ñang nara waxtane ci cheikh ibrahima Niass homme monde ou homme du monde di waxtaan wu am solo ñu ci wo mbokki talibé yépp bés bi tamit narna ci sargal président sengane Bay président Momar Betilo monsieur mohammedou Ba monsieur Babacar Tal monsieur Isa Diop monsieur Basir Cissé Adja Mariama Kebe Adja Nafissatou cham ñu fas ci rendre hommage Cheikh mohammedou Mamoun Ibrahima Niass Sele cham Adama Faye ak El Hajulo, wa daira Anwarul Faydati tijaaniyati Tibou Senelek ne bés bi ko monsieur Papa Mademba Bitey directeur général de la Sénélec ci programme bi nak 15 heures la tambali mise en place bi 16 heures ñu tambali zikarsi 17 heures pile ñu tambali conférence bi wa daayira bi ne suñu invité d'honneur moy El Hadji Ibrahim Mandaw kon nag mbokki taalibe ñong ci oo ñepp bu ko tardé samedi 30 décembre 2023 conférence religieuse bu faydati ci janete bu Sénélec ñu nax ko amalee ci jëppal Kër Baye Niass à partir de 15 heures ñu ngi ci woo jullit yépp bu ko kenn tardé